برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل تيجان جخن نينان عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير ماحي الكفر يرفع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أتمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى وصلني بحبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا رسول الله عليك صلاة الله ثم السلام فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم السلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسب الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعدته قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفي بالسلام عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم يرفعه عليك صلاة الله ثم سلامه ci ba def ci loo xam ne nun mënuñu ko cee def moom lañ daje woon tey di tàggoonteeg moom pour gunge ko yóbbu ko ca këram gu mujj nga xaaj Moustapha Guèye li fi ni ñu wax lépp ci seer yi léppay dëgg amu ci leen loo xam ne ni dañ koo sos liñ jox wax léppay dëgg kooku la ñu doon gunge tey ci këram gu mujj liñ ko fi ñaanal yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko dugal ca aljanna ja lim doon liggéey muy jàng jàngale lépp lu ci nekk ci yiw yàlla na ko yàlla fulal ne ba noppi def ko ci téere jëfam ci dugal ko fi jantal firdawsi waaw xam nga yërmande la ji sunu borom def ci xolu nit yonent bee ko wax keroog ba doomu Ibrahima génnee àdduna akub sëtam rongo ñom dafa toq saaba ne ko déet way mu ne ah kay ñoo ñak genn rongañ waaye duñ wax lu neexul suñu borom lool nak yalla koy def ndax and ak nit bam ñag benn bis muy neew doole bañ duggal ko ci kees mu tok ci sa wet na ki dutu jogati bu dara de am yow ya koy fekk mom du ñewat kum dawul sa yaram euh, dëgër nga lool loolu rekk moo tax. oustaz mu mel ni kóllëre gi doxoon seen diggante mat na ndax bi néew bi génnee sax say tànk lañ ko wuuf. waaw alhamdulilah ginnaaw kóllëre gi mat na yàlla na gën a mat da ci des yàlla nañ ko mottali ca euh, mbaar ma nga xam ne moom la yàlla mbaaral ñu bëggante ndax suñu digganteek moom cofeel amoon na ci fu ñu mës tase mu feeñal ko wax ca kàddu yoo xam ne place yi wuñ pour wax ko noonu yàlla na yàlla yërëm ko. ñu gis teewee nga denc gu ne waaye tey bi ñu ko génnee tey gis nañ loo xam ne man maa ngi ko door gis oustaz Alioune Sall tuur xéwal ko xam ne mënatul téye boppam. waaw li nu ñàkk la ki nu ñàkk la ki nu jiitu la te itam car bu mag la bu fàq ci garab gi loolu nag daw na yaram mu ko nekk. barhaamu baaun waraun alifun thumma haa